boutique yu bari nga xamante ni toj leen leen fi ñu dégg ci sa benn waxtaan nga ne ku ci dog rek alalu sàcc euh, ku ci dogee amoo koor léegi bu fekkente ni waa kër gi ñoom leer na leen ne diw mi lii ci alalu sàcc la ko jëlee ñoom indil ko njabootam ndax njabootam ñëpp euh, amuñu koor wala naka la demee. ok li nga ma waroon a laaj mooy suñ ko indi woon ñu di ko dogee te xamuñu ko booboo neex am de ah. wax leen waay <laughs> booboo neex la bii neexul xam lu tax ñii dañoo xam ne lii daa xaraam boobu jarul laaj wala takulu amwaalakum baynakum bil batil yàlla nee na bu kenn lekk sa alal li morom ci ay sàcc ay tappale nee naa la képp ku demoon ci osan yi xam nga man lu ma neex sëñ mi xam nga lu ma bëggoon yow nga dem ci osan bi taal ko ak marchandise ma ñu xam daa am lu la naqari ci réew mi waaye sàcc marchandise ma dem ba fa osan ba eh waaye yéen a neex gars yi ay vrai sàcc lañu man kay li ma d'accord maa foofu su ma ñëwee ci place taal place ba yëpp jëluma marchandise jëluma dara ñu ne kon Iran dafa am naqar ci réew mi waaye man damaa am na kuñ teg benn sareet ko gars yi nañ ko toppatoo téye ko nañ ko lijjanti ab sare la teg duy koy ceeb lu ne ne am naa lu ma woore soxna si képp ku ko sàcc woore ko soo ci dogee boo ne allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika aftartu boo ne wa ala risqika aftartu yàlla ne la da ngay fen lii wërsëgalewu ma la yaa ko sàcc faxfir lii maa qaddamtu min dën bi wa ma aqartu xaw ma soo ko waxee boo guuxee café ba pare yow Mahfouz koor ga nga wooroon mu ngi ca sama compte képp ku ñu sàcc ci jamono maasale bi waxuma mars bi de mars ña ko doon def mooy ñu toogoon kolobaan xaar ñu bàyyi leen seen leader ñu yóbbu ñu dañ doon mars ba mu pare fekk nañ ko këram d'accord naa ci bañ waxee ne jeex na lànk nañu parcelle maa ko suivre nit ñi ne jeex na ba fa la xale ba de gars yi ne ci rëbëjoo bi rek di toj ak lakk képp ku ci lekk dara dogee ko baa nga naan ko ku mu mën a doon ne la wóor ne loo woor ña ko moom ca seen compte la jëm bi ci des tooñ nañ ñu bëri nag tey chômage bi bëri na xoolal ñi liggéeyatul nekkoon ci Total yi nekkoon ci Auchan yi nekkoon ci yeneen magasin waxuma dara nag Mafos ña demoon banque lef fa ay millions ubbi seeni magasin xale yi ni ko doñ ñee di yóbbu bàyyi leen léegi fu ñu jëm ak banque te bànk xamul damaa lakkale la ndax alali jàmbur la la jox donc soxna si ku ca dogee kumu amuloo koor soo dogee ba pare ñu jël koor ko jox ko ko moomoo lekk waaye yow ma yow mënoo maa dimbali nee naa bii nga yor yow neexul bii ma la jox moo neex sa yow waa kër buñ ko xamee buñ ko xamul mais yow yaroo sa kër muy soxna si doon laaj yaroo leen parce que boo leen yaree ñemewu ñoo indi lu ñu moomul ci kër gi man saalum saalum laa ñemewoo faa for aji naa màkk ñu jógee arafa jëm madinatul makkatal mukarram pour war a def euh, tawaaful euh, euh, ifaada ñu romb jaloo xaalis jàll nit ñi di daw ma xaw ma lu ñuy daw ma di fii ni jaan laa loolu nekk xaalis boobu la ñuy daw kenn ñemewu koo jege ma ne ko ci bu doon Sénégal dañ lay wan na de fii bërëx lañ lay def waaw dañ doon daw a def rek ñun de meew bi ñu xam mooy bi ci nag yee xar yi bu ñu joxee ñu lekk de waaye ay génn ndox feeg indi nii <laughs> da xale rek looloo tudd karaamatul ayni du dara seen bët yi lañ lëndëmal du dara ku dem ca waaja ku dem ca waaja fekk fa gaay demal Saalum ñu nga ak maam yoo xam ne ci lalu gattax la ñuy tëdd seen ne kenn peronga ko suuf la fel yee lay màtt billahi wël kitaabi soxla boo leen wax fii lañ koy fajee nga dem juróom ñaari dërëm lañ lay laaj ñii ñetti fifteen ngay joxe waaye kuy wër ne maa man mano ña a nga toog ñu di leen wër waaye dara lañ manu bëgg a nax nit ñi rek ku dem ca waaja fekk fa gaaya dama toogo benn waaye ci gàmmu Cees ji passé mu fekk ma ma toog am ko ma booleeg moom ne ma boroomi jinni la ma ne ko da ngaa yor jinni mu ne ma loolu la ñu wax de ma ne ko non dama lay laaj rek boo yoree jinni ñu waxtaan maa man yoruma jinni parce que man jinni pour man c'est c'est euh, xaleel la du dara yàlla yónniwul jinni nit la yónni yonent yi mahfuz gis nga ci jinni yéen gis ngeen dégg ngeen ci jinne yonent yàlla Suleymaan daan trotti jinne yi di leen dóor karawaas ñuy tàkk di dagg di leen xuusloo ci géej gi ñu indi jamaa di ko jox wa iz sarafnaa ilayka nafaran minal jinni yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla yónni ko ci jinne yi ñii di ay taalibi am nañ jàkk am nañ jumaa ma ne ko ne dama lay laaj ndax da nga am jinne mu ne ma ah gaayee ko wax na ma ne kon yoroo ko mu ne ah, loolu la gaay wax daal ma ne ko lu jinne di xeeñ mu ne ma xaw ma ma ne ko xam nga garabu neew neew bi ñuy lekk mu ne waaw ma ne ko li muy xeeñ la jinne di xeeñ léegi li nga dégg ko ne dama am taalibi jinni moo ma yónni taalibi dana yónni sëriñam ma defoon sëriñe yónni taalibi ay masque la ñuy jënd Mahfouz suma wax la ko te ay masque denc masque yu garaw nag la su ma la waree seet si man li ci léegi paj mi réseau la réseau la jigéen ñi dañ cee bokk xale yu góor yi bokk ci ku ne da ngay kii client indi man maa ne ci réseau bi yor naa ay masque am na jaan yoo xam dañ leen di may chaîne xam nga loolu maa footu fii lii fi ne a newu fi dañ leen di may chaîne am na bar yu ñuy may chaîne am na mbëtt yu ñuy may chaîne temps boo ko jox rek la su waa ji bëggee dugg da nga koy may seen bu toogee tudd mu naan ñarararararar ci biir naan ko moytu jinne yaa ngi bëgg a ko moytul jinne yaa ngi bëgg a ñëw fekk dara nga ne ko bu guddee nga ñëw ki war a faj sa soxla danga ko fekk ñu waxtaan man ak yow ma ma jël sama waa solal ko masque sol yëre yu ñuul sol masque yu ñàng mane ko nag sa baat nu mu xumbee ko ma ne la duggal ci néeg bi bul tiit nag ndax moo war a faj sa soxla bul tiit ngeen di tëll ci biir mu yuuxu wut si la ñàngal noonu nga bëgg a daw mu ne la bul daw bul daw xanaa du yow la Mahfouz ñu ne waa kii fu mu xamee sama tur su yu bu nax yaag fen ya jeexee ba waaj a dem maa ngi yow ñu toog waaw gars ñu ne kii loo ko laaj ma ne 4 millions laa na ma 3 de ñu sédd waa réseau bi te bu waa ji ñëw di fay si 1 million réseau bi am na commerçant yu ci bokk kenn ku ne da ngay ñëw toog yow 10 millions kii cinq millions kii 30 millions su waa ji ñëwee toog ñu soo tut war a dem liggéey man waa ji daa waa ji est-ce que déggul li ñuy wax sax sa waaye moom ngay seet ma ne waaw man de moom laay seet 1 million laa ko doon yow noos nga man 30 millions laay indi kii ne man 20 millions laay indi kii ne man gis laa ko defee mu gën a dëgëral sama ngëm or que ay fen la gëm leen yàlla ku jaaxle jullil ñaari rakka ñaan moom xamul lu jinnee xeeñ gis nga jinne fii lay doxee fii fii lu doxee ndëggu di fii la am nii koo dendal soxna si muy xeeñ neew jógal dem jinnee de loolu rek moo fi ne dañuy nax nit ñi rek moo tax ay soppi génnee béjjën ak soppi ay meew karaamatul ay nii dafa garaaw man su ma neexee yow ma bind sa tur nii ci suma baaraam rek effacé ko def nii sa tur ne fàng man su ma neexee te danaa la ko wax du dara gëmuma ko moo tax jëlal sondel jëlal sondel fii la ko gars yi def dagg sondel dugal ko seen biir wey nga xam ne doo ko xam su ñëwee ñëwatul nga ne Mahfouz bind de sa yaay nga ne diw ne saafara laa sunguf laa sunguf si këriñ bu ñu dëbb la sot defal fii këriñ def ni sooy bàyyi rek Mahfouz génn sa tur yaay génn yii rek la karaama du dara ay naxe rek ak togg ci kaw jaww ji du dara teg nii njaq nii muy baax du daara ma ne la bu baaxee mën naa bu bu tàngee bu tàkkee mën naa faj sa soxla waaye bu saxaaree mënu ko ñu toog ba mu yàgg mu ne jëppet du dara am na benn affaire buñ daan jaay di ko toccami bu jëkk nu mu tuddoon non non gis nga boo ko jëlee dañ daan jël loolu boole ko doom bi ñuy jaayee pharmacie day xon nga dëbb ko ba mu nooy soo ci sottee produit bi boo ci sottee sunguf bi ci pét lay tàkk yooyu la gaa yi nekkee bitim réew kàccat ma ci nag kàccat ma ci maa ko tere ñu bari ne leen riba la sëñ bi man yàlla yor sama mbir ma radi rek galaas rek ndox rek sàcc yi séquma ñoom dara dañ leen di nax lànk leen dañ leen di nax yooyu da nga koy teel a jàng garde ko ndax ñu mel nii mais boo ko jàngoon gis nga soxna li muy tiit moom naan béjjéen beeg day génnee ndox am nga ni kii bu yoroon dara ñu nax ko léegi waa ji mën na koo takk sax ci béjjéenam yooyu ci am yooyu du dara ay tappale la rek Oustaz euh, benn question la ci weeru koor lu ci suukaru koor gis nañ ni léegi dafa commencé yëngal yenn sëy yi ndax dañu kii gis nga yor ñaari soxna kii yàlla may ko am-am kii am-amam demeewul suukaru koor yi ñi naka lay demee ndax ñi ay kër la ñuy def ay ne ci suukaru koor lu ci yàlla wax. yàlla woor la wax suukar. woor kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla nee na koor maa maa ko farataal ci yéen waaye nag du yéen njëkk woor am na ñu leen jiitu woon woor te nee na koor ku koy def ko ragal yàlla nga la preuve seetal sëñ bi yow nga wéet ci sa congélateur a ngeeg lu sedd guy pom jaa nga ca banaana jàng ca ginaar gi nga desala nga ca te ñemewoo koo lekk ti kenn newu fa ku la ko tee lekk suñu borom ku dul yàlla boo ko jéemee waaru su ko nit defoon tey da ngay gis ku ba suñ ñu naan ko sëñ bi koor gi tàng na de ah day nitu dara xamul dara tuusu la xamul da ngay ndékki ba suur ñëw naan ko ah sëñ bi de loo digle ñu def ko man de sama biir bi daan norte ma góorgóorloo rek ti ka daa ndékki ba suur mais yàlla rek ko gis nga yii ñu ci yokk sëñ bi ay suukaru koor fitna la fitna la nañu def li ñu yàlla sant ñun ci suñu bopp bu ñu amee lu luñ bëgg a defanti suñu biir ñu def ko xam nga ne de euh, tey nga seeti sa goro sa yaay jëkkër yóbbul ko suukaru ci koor bi rafet na am déet sa goro bu góor dem seeti euh, gorom bu jigéen yóbbul ko suukaru koor rafet na mais buñ koo warlu nag warunu bokkul ci koor gi bàyyi ko xel bokkul ci koor gi dafa bokk rek ci teraanga yi teraanga la rek nga mën ko defoo def ko mënoo ko bàyyi ko bul obliger sa jabar ji nga bu la obliger ne ko damaa deful da am suukar mu yaa ngeen ko yóbbul amuma suukar defuma suukar soo ko amee yóbbul jeex na bokkul ci koor ku mu yàqal sa affaire la mais bokkul ci koor gi. cheetetetet mais yow sa yow fu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablet